nga tomb bii jàll ñu ngi doon waxtaan ci lu aju ci gént tomb bii nag dinañ jël ay points yi am solo rawatina lu aju ci wàllu wér-yaram nit ki doomu aadama nag yàlla da ko bindee wér ak wéradi doomu aadama nag ala kulli xaal day xam li baax ci wér-gi-yaramam bañ a xool li neex ci boppam ndax li neex ak li baax du benn nit ñi nag lu ci bari dañoo sànk seen ak dund sànk gi nag ci li ñuy lekk ak ci li ñuy naan ci la bokk ci bari ñoo teg seen bopp tawat yi nga xam ne teg dal na leen ndax sabab bi ci ñoom la bàyyi ko doomu aadama bu ci nekk war nga gëstu sa bopp xam yan lekk ñoo baax sa wàllu wér yaram an yan lek ñoo baax sa wàllu wér yaram nit ki xam gi muy xam loolu dana ko dimbali bu baax ba yenn jàngoro yi suñ boroom dana dogal ni mën naa bañ a egsi moom likulli lépp lu am sabab moo ko amal waaye dara ayut nii rek am te yàlla suñ borom bind na àddina ay milliards at kenn nekku fi te nit ngi leen fi jóge ab diir dara du fi nekk moo indi feebar nag teg ko jaam yi feebar bu ci nekk nag jaam bi sabab yi muy def ba tax feebar bi dal ko waaye sabab boobu su ko moytandikoo dana tax du ko dal bokk na ci tawat yooyu nit ñi ak jinne ñoo bokk dëkk ci kaw suuf gi nekk ni waaye jinne yi nag am nañu pouvoir di mën a gis nit ñi nu leen neexee waaye li ëpp ci nit ñi mënuñoo gis jinne dañ leen di gis waaye du nga leen gis kon ñu gëmut yàlla seytaane ñoo seeni kilifa bokk na ci ñoom nag bu nit ñi doonee set milliards ñoom ëppee na nit ñi eh, juróom-ñaari yoon ñoom nag yàlla suñu borom moo leen defal taxsiis mooy ak jagle boo xam ne dañuy soppeeku di mel nu mu leen neexee noonu bokk na ci bu leen neexee nekk soytaane fi ñu taxaw ndax ñi nga xam ne jinne gëmut yàlla seytaane mooy seen kilifa. moo tax inna ja'alna shayatina awliyaa lillazina la yu'minun waaye nag suñu borom dafa wax ne inna ibaadi laysa laka alayhim sultaan am na si jaam yoo xam ne man maa leen mosal shayatin ak shaytaan yépp kon lu ci nekk dafa am barab li kulli lépp loo gis am na barab boo xam ne fa lay sababoo Euh, jinne yi nag ñoom ñu ngi dëkk ci alam bi ñu nekk nii alam bi am na yenn dundal yi fi nekk waaye dun nit du jinne yàlla moo leen bindee ñu mel ci benn melokaan comme ni ngeen xamee ni ñu jaww ji tiime ak yeneen yi fi nekk ci misaal kéem daan yàlla rek jaww ji ñu nekk di fi noyyi mooy àddina bi ngelaw yi fi nekk doomi aadama yi di ko jëfandikoo mat na juróom benn ngalaw yoo xam ne bu ci nekk bokkut tak sa morom te bu ci nekk laalantiwut ak morom loolu ci kàttanu yàlla sun morom la kon yàlla mi def loolu mën na def lu raw loolu def gi mu defaat loolu bokk na ci jant bii ñuy téem ñun ñëpp gis nañ ko num mu tuutee suñuy bët ala kulli xaali jant bi képp ëppee na suuf si million ak ñetti téeméeri junni million ak ñetti téeméeri junni du jaax moo ko ëppee suuf si te jant bi am na ci biddiw yoo xam ne ëppee nañ ko 400 fois wa annahu wa rabu shahra ku ne ku ne gis na ko ci jaww ji boobu ëppee na jant bi ñaari yoon kon yàlla kéemtaanam yi loolu weesu na ko jinne yi nag nit ñi danañ leen gis ci ñenn ñi ci nit ñi waaye bariwut lu muy am ndax jinne saaboo ko njëkk saa bu la njëkk gi dootoo gisati ci kaw suuf xëy nag coowal jinne bari na sunu alam bi lool sunu kaw na bi ñu nekk rawat na fi daaxili Sénégal mooy ci biir dëkk bi ñu nekk di senegal xëy na coow yi bëri na ci lool ku ne naan may borom jinne yi wala may borom maay bàyyi jinne yi alaa kulli jinne am na ñu ko yàlla jagleel ñu tàggatal jinne ndax Souleymane yàlla tàggatoon na ñu koy jinne ñu koy doxal a yitteem dama ko dikk waaye ñu ko yàlla tàggatal dëgg duñ duñ ko wax euh, duñ ko jëfee duñ nekk di ko ŋawti ŋawte ñu ko yàlla tàggatalut nag ñoo fi nekk di wax naan ñooy boroom jinne yi nekk borom diine tamit jarul namoo ndax yàlla mooy tàggatal doomu aadama lu ne lépp lu ngeen gis ci àddina bi doomu aadama moo faw ko loolu bu jaaree fi mu war a jaar laqad xalaqnal insaana fi ahsani taqwimin summa radadnaahu lii na kon doomu aadama buy defee ijtihaad mën na dem ba kaweel ay malaaka waaye bu doy dee mën na dem ba suufe lool ba bàyyi may sa ñoo koy tane kon am ay jinne yalla la koy tagatal way di ñëpp loko tagatal jinde jinne bu gëmut yalla nit ki fu mu jaar fajj ko yom ni alquran kep ngay jaar pour fajj ko loolu lu di baye xel la bax bax legi nak jinne yori am ay barab yu ñu nek yu ci ëpp marché yi ñu ngi ca digg njolloori mbeddi yi ca guddii fa sën yi ña nga ah, duus yi ca moo da ngay gis ko xamne ay duusam ay ay ay gentam ay duus la ba ci armée la ñanga ca mooy waral ñen saa ngay gis ko xamne lu ci ëpp lay gént di sangu rek mu juk ci duus mu nga am nga rab bo xam ci duus la dëkk day dem faje ko de desaat tektal yu am solo mu wal rab mës na ci joxe tektal nit ki safara ko mu calmé wu ñu melni calmant rek dana la fajal li nga bëgg ci saasi si waaye nekkul lu mën ne wéy kon ku xam ne loolu moo la dal nga dem ci ku la ko ku la doy wax la ko demal nga faji ko moo gën eh, te nit ki lépp lu ko dal bu sababee pour faju yàlla mën naa taw tew feex mu faj ko am na ci ñoo xam li leen li leen dal ñoo ko teg seen bopp ndax ay sën dañuy moytandikuloo nit ñi di fay jaar rawat na digg njolloor rawat na xaaju guddi am na ci ñoo xam ne amul waxtu dox yenn waxtu yi dañ koy moytandiku la nit ki digg ba euh, da leen moytu di yónni xale yi ak mag ñi jaar ci digg seen xale yu bari jinne sàdd na leen dugg na leen ndax na nag lu aju ci jigéen ñi lu ci bari ñoo ko teg seen bopp am na ñoo xam yéen jëfandikoo buñ gisee mbaax ba nag fu leen neex lañ koy sànni yooyu mën nga cee sànni foo xam ne dëpp wut ak fi nga ko war a sànni yooyu des ko war a suturaal def ko ci barab boo xam ne yàlla mën na dogal ba lor mën na cee bañ a jógee di ñëw ci yow boo ko sànnee foo xam ne jinn ju bëgg deret mën na cee jaaree ba dugg la ndax yàlla may na leen ñuy soppeeku nu mu leen neex dañuy soppaliku muus di soppaliku jaar di soppaliku xaj di soppaliku melentaan dangay gis ko am danaan damay tëdd ay melentaan day mat rek ci bëtee doon ay rab léegi na nit ki faw mu xam yooyu di ko jiima moytandiku ndax yàlla bi la bindee ba noppi daf la jox xel ngay xalaat xalaat nag du caagi ne damay toog xaar yàlla ngay dégg naa ma damay wakkilu ci yàlla du ma dal yàlla la waaw lu amul ala kulli xaal loolu lu mën a nekk la waaye nag wa man yatawakkal ala allahi fa hasbu inna allaha baalighul amri ñoom ñi wax loolu gëmul ko nuñ ko gëmee sax ndax bu leen ne cuuc melentaan mattoon nañ dima dem hôpital fexe leen ko médecin fajale dee tamit yàllaa ko yor ndax li li suñu a wax kullu nafsin zayqatil mawti bépp kam dund na dee waaye nag bul asaaloo sa dund gi mooy sa dund gi bu ko tasaare bu na ci misaal nga dugg Illimix moo xam orange wala espresso wala tigo ñu ne la mën na laa may cent minutes yi soo ko sakkanalee mën ngaa waxte une semaine cinq minutes sakkanaloo ko nga jël ko di ko di woote rek di woote rek appel bu ne dana mat trente minutes léegi balaa balaa deux heures temps sa ligne bi jeex bu la yàlla ne mën nga gudd fan du ci ne da ngay gudd fan waaye nag boo demee ci digital tali ba taxaw fa bu la oto fekkee bu la mbëkkee tamit da ngay dee fekk yaa ci dund gi loolu tamit lu mat di bàyyi xel la baax baax mbokk yi am na ci yoo xam ne yàlla daf ñoo jox ay xel ñi ci xalaat di ci bàyyi xel kon buñ wax ne damay wakkeeru ci yàlla lu ma dal nangam ak nangam fii li fi dal nit yàlla ko teg wa ma asabaka min hasanati fa min nafsika wa ma asabaka min hasanati fa min allah wa ma asabaka min lepp lu ngeen jot lu ci lu ñaaw seen bopp la waaye lu ngeen jot ci lu rafet nag yàlla moo tax amul lu bon lu rafet la kon mbokk yi nañuy bàyyi xel loolu baax baax léegi nag yàgg ci duus ak dugg yenn waxtu yu ci duus yooyu it dana lay jox nga jëlee ci coros rab wala for rab di dox ci digg sën loolu tamit dana la koy def ba di moytandiku li yàlla di tere loolu dina la tax la mus te ni jàng alquran di ko déglu di ci def lañ man loolu tamit lu mat di bàyyi xel la léegi kooku nag bu dee koo xam ne jinne ji gëmut yàlla boo koy fajal nit ki bay yuuxu di jooy ndax par alxuraan da koy lakk daf koy lakk comme li ñuy lakkee safara lolu tamit lu mën di bàyyi xel la baax moo tax mbokk yi nañ bàyyi loolu xel baax te xam ne lépp mu ngi ci loxoy yàlla yàlla mooy def mooy dindi waaye nag dafa bàyyi nit ñi jog leen xool lu ci nekk def na ko ci bis beeg heure bi dogal bi ak sabab bi mu ngi bàyyi ko ci nit ki kon bu yàlla ne bul teg sa loxo nga teg sa loxo yàlla ak sabab yàlla ku la de moo tax ba yàlla ne bu leen zina laa taqrabu zina innahum kaana fahishatan wa sa'a sabila donte benn yoon la sax dafa ñaaw dafa bon dafa ne bu leen jege la wax laa taqrabu zina loolu laami la kooku naf la day dàq ñu jàng moom xam nañ li may wax kon loolu lu ma di bàyyi xel kon lépp lu suñu boroom tere rek njëriñ la ci nekk mooy jaam bi jëriñoo ko kon suñuy tëdd na ni muslaay di jàng alquran luñ ci man di ko muslaay di ko liimoo dina tax suñu borom musal ñi ci yenn jafe-jafe wan yenn gàllankoor yi kon ala kulli xaalin lu mat di bàyyi xel la baax a baax kon ñoo ñooñu am na fu leen barab yoo xam ne fa lañ nekk ku ko mën a moytandiku na nga ko watandiku incha allahu rabbi euh, léegi nag mbokk yi aajowoo numéro yi incha allah mën nañ koo jël 78 443 75 27 yooyu ñooy numéro yi nga xam ne euh, ku am lu aju ci gént wala li si xaar incha allah rabbi mën nga ci yónnee mbokk yi ñuy sonal nag ci gént yi nañuy bàyyi xel ni gént yi dafa am fay dañ ko bàyyi xel baax baax gént dañ fayee ko ku ñuy firil gént da am looy fay pour ñu firil la gént lu tax ñu wax ko nag yu ci bëri mbokk yu bari bu ñu doog a dajeek si numéro ci internet bi euh, gént gun mës a gént ban juddoo léegi dañ la koy bëgg envoyé nga toog bàyyi sa yitte yëpp nekkal liñ sa nit soo leneen fay ñu ne kon gént am na fay ndax yow mbokk mi nga xam ne man damaa bàyyi sama temps bi yëpp nga envoyé vocal yoo xam ne benn bu nekk une minute la ba muy cinq vocal mi cinq minutes ma bàyyi sama cinq minutes sama temps nekk sa yitte nekkal la sa yitte nga ne ba noppi man sama yitte du dox sa yitte di dox nga ne waruma laa laaj dara ndax connexion bi ñu utiliser dañu koy may mayut ñu ko saraxul ñu ko dañu koy jaay ñu koy jënd sun temps bi tamit dafa am leen ñu ci war suñ ko bàyyi di la nekkal ci mbir dañuy nekkal kon képp koo xam ni bëgg nga sa gént ñu la ko firil del bàyyi xel ne am na àq ju dox sa diggante ak ñun mooy dafa am lu nga war a war ak ñun euh, mbokk yi bari def nañ ñu ko gis sa numéro rek yónnee la ay vocal yi 6 minutes wala 7 minutes wala ay vocal yu bari wala jël ay son yu jàmbur di la ko yónnee pour nga di leen firi ay gént am ñoom sax dañ leen di envoyé vocal ñoom dañuy jiima ni xam dañuy firi gént xam doon ñu envoyé vocal ay vocal ñu envoyé ñu pour ñu firi leen ko ku ci fay nag dañuy ku ci fayit nag dañ la fay bàyyil say vocal ndax ñun ban nee ban nee dañuy firi gént waxul ne firi gént gratuite la kenn déggagu ko suñu kàddu ku am gént envoyé la boo ko teg firi gént gratuite la ñu bëri ci la ñu bëgg sukkandiku naan damaa déggoon sa numéro rek déedéet ngeen bàyyi ci xel baax a baax kuy firi lu gént da ngay fay ndax bu doon télé yii ñuy wootee fuy firi gént kenn wooteewu fa ngir crédit déedéet booy wat dafa am lu ñu warloo serveur bi ngay wat dafa am lu muy lakk li muy lakk loolu mooy tax mooy doon sag fay pourquoi léegi connexion yomb na rek nga bëgg a toog fi nga toog ne damay envoyé vocal nit ki di ma tontu solo laajee ngeen ko waruma fay kon gént dañ cee war a fay gént dañ ciy fay ndax connexion bi nga utiliser pour dugg ci internet pour xool gént connexion boobu foo ko mënta connecté wu mayuñ la ko saraxun la ko bu dee wifi dañ koy fay weer bu dee bu dee orange da koy fay bu dee Expresso bu dee Tigo maa ngi jégalu sax di leen publicité waa leen ala kulli xaali kon loolu lu mat di bàyyi nga xam ne dañuy faral di contacter ñu leen di wax ngeen bàyyi ci xel baax a baax ñun ay mag yi jëmm lañ dañoo yore njaboot ñu war dafa bëri firi gént da ngay fay numéro bii ci ngay envoyé xaalis bi am na orange bu ne am na wéew incha allah rabbi ngeen bàyyi ci xel bu baax a baax di ñaanal ñëpp jàmm di ñaan suñu borom defal ñu tawfiix incha allah rabbi jërë ngeen jëf